Euh, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, mes chers amis de Facebook. nous sommes ici à bu Nous sommes ici ji ñu di leen Nous sommes ici di ñaanal yalla ku nekk ci li nga ñi ñaan yàlla jàmm ci réewu senegal di ko ñaan ci dëndu Afrika di ko ñaanal àdduna bi yépp fépp foo xamante ni tey coow am na fa muy aju ci ay guerre ak yenn xeetu fitna yàlla na ko yàlla fay ak jàmm yàlla nañu yàlla may jàmm tey nag euh, ñu ñëwaat ak yéen di waxtaanee wàllu politik comme slogan bi ñuy faral di wax rek curieux de tout mais expert en rien jotaay waxtaan la rek li nga xamante ni suñu xel la ñu andi ko rek ak suñu xalaat ci waxtaan bi te xam ne tamit du vérité boo xam ne bi ex cathédrale la maam loo xam ne kenn mënu ko weddi de la contradiction jaillit la lumière donc muy xalaat rek bu ñu andi mu nekk suñu apport qui est waxtaan bi waxtaanu politique bi tey ji 25 mars 2022 mu marqué donc 10 ans bi nga xamante président Macky Sall egsi na ci boppu réew mi en 2012 on serait prétentieux en disant que dañuy def bilan parce que def bilan mom dafa appeler ay ressources yu bëri mais toujours xalaat rek lañuy joxe ci niñ ko gisee évolution bi xam nga amna côté bo xamné économie la am ñu seen xel gën a màcc mais am ci xalaat ñun tamit amna lo xamné ci domaine bu nekk la mais comme ñun souvent ci politique la waxtaan donc ñu ñëwaat ci politique rek xol évolution bi ci walu politique ci walu démocratie parce que tout dépend de cela finalement tout dépend de l'état de notre démocratie ndax démocratie bi tank kanam la am wala tank ginnaw fan yee passé de ci rubrique bi ni chronique yi ni amoon nañ ci ay waxtaan bon globalement ñun ñu jàpp ne suñu démocratie xam nga nag comme Macky Sall Jerza Macky Sall jeexalagut mënuñu def benn jugement définitif parce que maçon bi da koy juger au pied du mur mais ci liñ gisagum nag wax dëgg yàlla li ñaan ci bu noree neex bu baxee xeeñ mën a jàpp ne ba fii nii tànk ginnaaw lañu lañu am suñu démocratie bi ci nguuru Macky Sall ci 10 ans dañu dellu ginnaaw bu baax a baax a baax a baax waaw on a accusé beaucoup de recul sur le terrain des acquis démocratiques parce que bu ñu defee benn bref euh, aperçu rek ci histoire xool diggante 1960 ba tey ci indépendance ba tey néew nañ le depuis 1963 rek la ñu am xeetu régime bii nii. président de la république bi di buur di buum bi mu doonoon Senghor ginnaaw bi mu écarté Mamadou Dia ba pare doole yëpp mu yoraat ko. kon moom président Macky Sall delloo na boppam ci seesu président Senghor bi daaw ci 31 décembre bi mu toogee muy wax ci wàllu justice mu ne man président de la république fii maa yor lépp. parce que boobu lañ ko doon laaj bu ko fàttalikoo ci premier ministre bi mu ne premier ministre mënu ko baare ci dara parce que pouvoir yëpp moom moo ko yor ci la waxee sax junj lu mel ni tey nit mën nañ ko topp si yoon. le président de la république ma arrêté machine bi kon finalement li séparation de pouvoir te muy marque a démocratie muy marqueuru démocratie il y a une am séparation de fonctions, comme le ko magistrat bu dit. di Ousmane Kamara, ci livre bi livre, il ko wax ko de Macky Sall mais il nga koy la formule bi donc ce amoon ci le ba bataille. muy présidentialisme ultra présidentialisme Vous savez, le président de la république buur le di am na doolewu teg loxo ci justice bi muy attaqué wu à ses adversaires di protéger ñi nga xamante ñoo ànd ak moom mu am doole boo xamante ni mën a gis dossier ñu topp nit ci yoon mu teg ci kuudam loolu moo continuer ba tey mu gën a exacerbé wu sax moo tax ñu jàpp ne amuñu évolution ci wàllu démocratie ci nguuru Macky Sall parce que tey lan moo ko faloon moom lu dul werante wu ndax président bi mu wuutu di Abdoulaye da fi tek domam wala du ko fi teg adi addi 3e mandat ñu bari ñortu ne président Abdoulaye Wade kat ñetteelu mandat bo mu don sakku pour tek fi domam la bu fi jóge delloo rek manam euh, rew mi ci buumu ñam danaka ñu doon wax dévolution monarchique du pouvoir parce que damaa jàpp ne président Macky bi ñu koy fal donc lu bëri loolu moo taxoon gars yi kat jàpp nañu ne dafa am ay fils biologique ak naturel ak politique astafurlah dafa am fils biologique ak politique mu écarté nu mu tuddati mu mu mu war a favoriser fils biologique bi écarté ñi nga xamee ne ñoo di fils spirituel yi politique ñu mel ni xeetu Macky Sall ak Idrissa Seck ak xeet yooyu ñu bëri sentiment boobu moo tax ñu ñu jàppale Macky Sall finalement mais dégluwuñ ko bu baax ci programme dégluwuñ ko ci dara li ñaan fii da ngay nekk Sénégal souvent ci posture victimaire gars yi am yërmande ci yow ne ndeysaan après jàppale la loolu rek moo tax daanaka mu falu sinon jamono yooyu ëppul euh, benn mérite président Moustapha ñas wala Ousmane Ousmane même si yàlla Ousmane Tanor Dieng wala yooyu te moom sax il était comptable di bilan de président Abdoulaye Wade waa kon tey bu ñu demee ba cool troisième mandat ñëwaat amuñ ba tey li ñu ci leer mu yokk ci ne gën a réeral nit ñi je dirais nii wii ni non, comme si lui seul, il est le dépositaire de l'agenda républicain. parce que li marqué que la démocratie, moi, respect agenda républicain, calendrier républicain, respecter justice. Donc, bon on regarde la justice, il y a des calendrier républicain, ñun amuñ ci maîtrise parce que mënuñ xam ndax candidat lay nekk en 2024 wala du ko doon loolu tam nek ben sooxe ci suñu démocratie tay. donc fofu dañu dellu ginnaaw bu baax a baax parce que le temps que gën a garaaw sax mooy moom bi mu fekkee warante il avait l'occasion de faire opérer les réformes propres à remettre notre démocratie sur les rampes de l'émergence Organiser le référendum 2016 référendum de là, il faut. lu commission nationale de réforme des institutions pour dëggal li nga xamante des moo di et ci assises nationales ay kilifa yu mag ci bi Sénégal diagnostic 60 ans moom mu ànd ci ba pare xaatim ko président Macky Sall nee nañ jàpp naa ne moo ko wax mu ne lu ko neex la ciy jël lu ko neex la ciy jël nag mooy ñu organiser référendum ñu ne waaw kay léegi xanaa affaire troisième mandat yooyu parce que moom moo ko wax dama koy verrouiller dama koy verrouiller dégg naa euh, dimanche bee passé benn borom xam-xam bu mag ci wàllu droit di professeur Mody Gadiaga ñëwaat na ci. donc nee na même projet wu référendum boobu noonu leeraloon nañ ci ne c'est pour verrouiller kii bi noonu quoi na amoon na ci mais après lañ ko dindi moom moo ko wax mu ngeen ko dégluwaat ci émission bu mu def i média i rajo dimanche bi passé professeur Mody Gadiago di di constitutionnaliste mag ci réew mi donc ñu jàpp ne moom dafay jaale jëlee fi warante wu troisième mandat comme ni nga ko waxee mu verrouiller ko mais ñu doon xaar mu wàcc troisième mandat parce que pré cadre président de la dafa sacré bu doon Amérique tey koy wàcce li mu def ci référendum bi à travers le procédure la procédure de l'impeachment nga xam ne moo Nixon ak ñeneen bu dañ koy mettre en place ci temps Nixon ak ñeneen ci temps Clinton sax tout ñu mettre ko en place parce que président de la République dafa war a sàmm kàddoom bu ko deful Amérique dañuy def amende honorable wala mu wàcc. donc ci référendum boobu mu amoon occasion réformer dëkk bi affaire troisième mandat verrouillé ko après ñu jógee ci affaire bi gën a lëndëm ci bopp yi. mais li tax duñ ko mën gëm surtout ci affaire troisième mandat mooy boobu moom dafa waxoon promesse dafay wàññi mandat de 7 à 5 ans après l'autre, il reviendra, Je ci def ans 7 ans revirement que j'ai mu en 2016 Je suis ñu à ci dëkk bi mënuñ gëm 2024 je mu bañ a 3 troisième mandat il faut faire euh, attention parce que problématique troisième mandat il est dafa ci bu bilan parce qu'après, il y a des aspects qui nous, abordé Il tax ñu nous ci xel président Macky comme un démocrate mais nous devons faire attention parce que mon moyen est de verrouiller parce que président Abdou Diouf il def consensuel pour 92 loolu ce na ci disposition pour limitation des mandats président Abdou Diouf ne a ci changer virgule bi mu dégg kujje gi ba pare mais bi ñu ba 98 arrangé a ko dañoo virgule. verrou bi waxuma le président Abdou Diouf devrait revoir virgule mais virgule point virgule trois points de suspension point d'interrogation, point d'exclamation et deux points peut le revoir maanaam revenir ci Le président Ablaye Wadou tamit la même chose Donc, am excuse parce que 2001 constitution a elle am écrasé 1963 mais en 2016 modification constitutionnelle la président Macky donc les moral technicien du droit mais li technicien du droit wax bu ko principe. Mais dans def troisième mandat Quand nous sommes ñu nous ñu nous mais mënul andi Ben clair obscur bi le ni parce que li tax ma ci da ngay le président Macky Sall fait falo ba rek ñaari parti yi nga la bipolarisation pendant 20 ans au Sénégal presque ou plus muy PDS ak parti socialiste nañ ba bokku ci élection bi prêter au président Macky Sall l'intention secrète de réduire l'opposition à sa plus simple expression ne xam pas wax wala mais loolu lañu assisté à travers la réactivation de la crise, on écarte le candidat naturel du parti démocratique sénégalais Karim Mesawad en l'occurrence à travers caisse d'avance même bu ñu mënee reprocher Khalifa Sall mais boo le calendrier bi ni juxtaposition des faits coïncidence extraordinaire tout portait à croire qu'on voulait encore écarter Khalifa Sall sous le mode sur lequel on a écarté à la Florentine Karim Maïsavad. Si bien que, en 2019, ñaari parti Madiou, parti nga a le parti socialiste le doyen des formations politiques d'Afrique francophone avec le PDCI de Côte d'Ivoire le parti socialiste a beaucoup ci pour la première fois de l'histoire parce que ce parti socialiste est mouvement Khalifa Sall et que socialiste il se retrouvent ci Khalifa Karim Wade tam ñu écarté ko léegi lan la jur après lan la jur parce que la nature a horreur du vide ma yokk ci tam nga créer une dame de compagnie une caste de journaliste dame de compagnie waxatuñu askan bi ñu ànd ak yow léegi lan lay jur la nature a horreur du vide mu àndi ay activistes yu nekk ci réseaux sociaux yi remplacer journalistes yi parce que déggatuñu leen léeg-léeg ñu après saay saay di ciy dugal loxoom mun na nekk activiste boo xam ne gëmul dara. peut-être que dafa vide rek situation bu vide la mu occupé wu ko mu occupé parce que souvent la politique c'est un ascenseur social c'est un raccourci donc après mën na fa pas di manipuler jeunesse bi que le président Macky Sall peut-être yaa ko créé vous avez une presse bi nek ci dynamique un progrès bu mu nekkoon jugee ci un journal muy soleil dem ba ay 1988 ñu commencé am ay magazine ak ay hebdomadaire Sud Hebdo le Wal Walfadjri présidentielle 93 ñu am ay quotidien 94 ñu am ay rajo privé mu gën a egg fii màgg ci année 2000 rajo yi gën a màgg ñu dem ba am ay télé mais yow nga ñëw même presse boobu sax boo xoolee dafay dellu ginnaaw ba après problème de crédibilité dafay posé wu mu jox doole activiste yi nii. ci wàllu politique tamit même chose loolu lañ fi gisagum loolu lañ fi gisagum parce que am nga benn wujj bu tudd Ousmane Sonko lu bëri li muy def amal gam la nee na anti système mooy moom lépp lu fi xawoon depuis Senghor ba tey baaxut dañoo war a sax fusiller. ancien président de la république tey bu xëyee bu toogee Khalifa Sall moo koy wër ak Aïda Mbodj nga xam ne c'était des piliers du régime socialiste Aïda Mbodj moom mën a jàpp ne sax dafa transhumé après ñooñu tey ñoo koy wër mais li muy wax dañ koy mën a dégg parce que nit ñi dañoo doyal ci yow président Macky Sall parce que da am déception bu bëri boo teg nit ñi parce que après li ngay wax mënatuñ ko dégg finalement contradiction bu Ousmane ko mën a def ci affaire 94 milliards yi nee na moom yaay bi da koy dénoncé mais du tee day waxtaan ay famille ci affaire u bu Ndiaye lu kenn mësul gis nee na yéen dafa def rapport xaw ma di ko yóbbu xaw ma fan après wax ji du leer ba ci affaire u Adji bii nii loo xam ne kaay wuy yoon rek ñooy dëkk bi dina tàq dinañ xar suuf si dugg ci yaa leen dooleel président Macky Sall parce que tey mën nga maintenir démocratie bi fi nga ko fekkoon kon lii lépp du am parce que ñun loolu lañ xam diggante Mame Lamine Gueye ba tey dafay am ay contradiction ci politiciens yi ci homme politique bokk ci ñuy stigmatiser politiciens yi Sénégal loolu démagogie boobu dafay am quoi souvent da ngay nekk lycée wala université di xeex ni ko dàqu la jàng de moom mu taxaw fee xëy toppatoo na jàngam en tout cas réussir ñoo ne technocrate la di xas politiciens yi pour man politiciens yi ma xam ne ñu bëri am nañu ay défauts mais ils ont beaucoup de mérite tam parce que bëri na ci ay acteurs yoo xam ne dama fekkee seen jeunesse gis leen ñu nekk ay jàmbaaru xare ñu am ay sacrifices yu bëri ñu def ñoo xam ne seen jàng looloo ko yàq cetera mais du tee ni ma ko waxee mécanisme démocratique yi boo ko boo ko yàqee rek après leneen mooy ñëw leneen il faut ñu def attention

Libéria Sierra Leone xet yooyu yëpp gis nañ ko fi donc ñun avant amuñu danaka lu nit ñi soxla lool mais tay am nañ ko nak am tamit lo xam ni moy mooy xalu ndeef yi nga xam ne nii gëmm may fayul mu wër ñu ci Guinée Conakry wala Guinée Bissau amna na xalu ndeef yoo xam sax ñi ngi tak amna xal yo xam ñi ngi tak fofu ci Mali affaire terrorisme bi donc arrière plan géopolitique bobu nak arrangé wu le président Macky Sall maanaam tay Sénégal îlot de stabilité bu mu doonon ci taarix bobu tay tay la ko gën wara gëna mo doon motax ñu lay ñaan yalla en guise de conclusion ñu la koy ñaan président Macky Sall yaa am doole ñu amuñu doole mënu ci dara ay citoyens yu ëmb la suñu xalaat rek lañu am di ko dox ñu respiration démocratique ci date 3 avril bii di ñëw booy def ce discours dañ lay ñaan yàlla nga de too ci parce qu'à chaque fois bu amee occasion solennelle bu ko permettre dañ la ko ñaan nga profiter de la solennité de ce moment

tay nit bu doon jaay drogue sax bo moytul wala di def lu bon sax bu ko nexé mu balel ma ci wax ji non lañ ko mëna waxé nak quoi parce que wax ci tam duñ ko yëram ëmbal xalé bu jigéen yaay né da ngay xéxal fé démocratie ak xéet yoyu tay nit té fu mu def ci société bi bu waxé critiquer Macky Sall duñ ko mëna déglu ndax affaire 3e mandat bi parce que dañuy am sentiment né dëkk bi amul justice après cela cour du roi peto da fay melni nit ki lu ko neex rek def ci dëkk bi tay après dañuy xaw am dëgg tamit donte nekkun ci dëgg mais fay niru dëgg li ñuy wax tamit moo tax profiter solennité troisième mandat bi président président Macky Sall nga nga nubtudati nga kii nee ndax naa rejoindre la cellule de veille de communication du président de la république non non foofu man fa laa nekkoon ñoo ma fa jëlee bi ñu 2012 man m'a doon conseil spécial du directeur général de l'agence pour l' emploi des jeunes des banlieues mais li ñuy def ñoom taxawaluñ boobu réew mi bu ñu ma déggaloon boobu lii lépp di am ñi ma ci daan doxtaan nag jamono ñuy tëj Karim Wade ak yooyu dama leen daan wax bàyyi leen lii ngeen di def baaxut parce que tay mo andi li am de crédibilité bi am ko andi en somme Pape loolu donc président ñu ci lañ ko ko situation je crois que tay président de la République son meilleur conseil en communication c'est le peuple sénégalais te peuple sénégalais lu bëgg définitivement par rapport au suspense sur la problématique de la troisième candidature qui n'a aucune raison d'être... Ça n'a pas une raison d'être cette problématique là Compte tenu des précédents évoqués, nous commencé à Donc nous, nous avons le conseil. Nous avons le conseil. Nous libérer l'affaire affaire du troisième mandat. J'insiste toujours. Parce que tout débat est important. Nous avons du débat boo xam ne nii dañ ko war a faire... parce que li xew ci arrière plan géopolitique bi ak lépp lu xew ñu tey war ñu les données de contexte arrangé wuñu donc euh, en définitive bon bref aperçu bobu la amone pour def ko ci bilan ci wàllu politique ci président Macky Sall donc xëy na beneen buñ ko amaté dina gëna a yaatal waxtaan bi am rek ben wàll bo xamné dañ ko faté aborder moy li gëna sax tay affaire problème troisième mandat bi gëñu ñu moy mom ci kaam sax gisuñu ben successeur bu mu préparer té bu ñaa organisation organigramme motax mu né structuration horizontale ci APR et structuration horizontale bu ko xolé ci wàllu management. C'est une structuration de type autocratique qui élimine toute ambition parmi les lieutenants tey Macky Sall loolu la def tam dafa mel ni wër ñëpp préparé ci kenn pour mu succédé ko ba fi tegee Mimi Touré ku melni ni keneen Aly Ngouille Ndiaye am mën am mu taxaw ne duma ci and parce que li ak li bu fi tegee Aly Ngouille Ndiaye kenn mën bañ parce que moom moo tëggee noonu alliance pour la république si bien que ñun dañuy jàpp ne Benno Bokk Yaakaar sax dañuy demander est-ce que mën survivre à la présidence de Macky Sall maam ci 2024 dafa mel ni président Macky saal dafa tëgg Benno Bokk Yaakaar ci façon boo xamante ne bii moom kese la bu bàyyee Benno Bokk Yaakaar ak Benno Bokk Yaakaar ndëmbeelu parce que après dafay nekk une armée mexicaine boo xam ne dafa mën a tànn bépp waa léegi moom comme dafa daanu dans son propre piège il n'a qu'à assumer tamit loolu mais bu mu entraîner le peuple sénégalais ci piège boobu noonu dans ce trou trou boobu mu daanu bu mu ci entraîner kon bu boobaa le peuple sénégalais bul mujjee président Macky Sall bul mujjee poso mu Pour bi da nga ci fekk ba say prédécesseurs, à chaque fois nous avons ci ay coow politique def na ay président Abdou Diouf a fait naa ko code consensuel bu 1992 dont il a fait un ci de waat mais dem na si jàmm président Ablaye Wade bi ñuy werante Ousmane Ngom waru organiser élection moo ko war organiser parce que dafa amoon benn genre nii ni ñuy jàpp incompatibilité fonctionnelle entre nga responsables responsable ci parti au pouvoir bëgg organiser élection yi a fait une concession

suñu bëgg-bëgg ak suñu ci réew mi moom moo fa rek def nañ ne wax ci jub amul lenn mais bu amee vu rëq-rëq képp koo xamante ni heurté nañ la ñu lay ñaan yàlla nga baal ñu bu baax di rendez-vous à la prochaine fois merci beaucoup jërëjëf